pourquoi Macky Sall oui parce que nit ñi ñoo doyal ci système mu donc rendre ko service mu nekk ci côté c'est-à-dire que déjà système boobu noonu ni muy fonctionner man gëmuma mhm. yàlla rek moo xam mais gëmuma ne mënati nañ gagner élection mhm. Sénégal ci biir 2024 bi ensuite seen candidat moo wax man waxuma moom mooy ñëw ne dafay def continuité mhm. d'ailleurs sax am na benn naxaata bu rëy bu ci nekk ma bëgg sénégalais yi bàyyi ci xel nee nañ ñoom PSE mooy seen programme xam nga loolu yëfu tàppale la mais attends mais Mansour PSE c'est un programme c'est le programme de l'État du Sénégal Amadou Ba nee na l'horizon n'est plus 2035 parce que Sénégal am na ay ressources yoo xam ne dinañ ko exploiter ren donc 2030 maintenant euh, dina tirer Sénégal ci ci ci émergence boobu ñu ñu sàkk woon ñoom yow du journaliste politique nga mhm. ana programme Amadou Ba anam PSE mais PSE ñun ñoo ko moom PSE c'est le fonctionnement régulier et normal de l'État du Sénégal tey ñun Diomaye président bu ñëwee Diomaye fay nekk président mais doo ñëw fekk benn tali bu ñu tabax ci digg bi nga ne non dama koy arrêté parce que Macky Sall moo ko fi defoon da ngay tabax tali bi. c' est ça le PSE. c' est un peu ce qu'il a fait avec Wade les chantiers de Wade. mais voilà l' euh, international Blaise Diagne. Mm-hmm. Ablaye Wade boo dem na ba quatre-vingt pour cent Macky Sall li ñëw yeggali ko. Mm-hmm. tey le port de Ndayane ñu ngi liggéey mais bu Diomaye fay ñëwee yeggali ko. nga ni tey euh, am na foo xam ne dafa am abri provisoire on a un budget de tant de milliards pour dindi ko mais boo fi jógee président ku ñëw da koy yeggali. mais les les salaires mais xanaa xamoo salaire fonctionnaire sax ci PSE la bokk. salaire fonctionnaire ci PSE la bokk da ngay fay salaire yi beneen président bu ñëwee day fay salaire. Mhm. léegi la grande arnaque mooy ñu ne la non ñun PSE mooy suñu programme. PSE du seen programme PSE parce que tey par exemple par exemple programme bu ñu la waxee bon sa programme noo koy financé. Mhm. nga ne bon damay jëli fii recette recette mhm. seen recettes yi ñoom yi di yëge impôt ñoom ñoo ko moom. Mhm. <laughs> léegi loolu pour man yéen journalistes yi da ngeen ci war a gën a gëstu laaj leen Amadou Ba ana programme am PSE c'est pas le programme de Amadou Ba on aurait même pu comprendre en ma Macky nekk un président sortant di défendre bilan. nga ne ah moom kat dafa bëgg a yeggali mais nga yow nga ñëw nekk président bu bees tax. naan non PSE et gis naa sax ay critiques yu ñu ciy def naan non ñoom ñii yeneen candidat opposition bi li ñu wax yëpp. dañuy ñëw e. renforcer li fi nekkoon. mais bu yeneen président yi ñëwoon renforcer woon li fi nekkoon yow doo nekk sénégalais yow doo dugg école yow doo dawal ci tali yow doo am loo lekk. sa mhm. c'est la continuité de l'État moi je demande solennellement à votre antenne fii. nañu Amadou Ba wax lan mooy son programme le PSE n'est pas le programme du candidat Amadou Ba le programme de l'État du Sénégal